mën a wax ci moom yëpp dafa bëri parce que mara démb la du tey julite na yaram la am na yar am na teggin yar na bëtam yar na kàddoom macha allah dañuy wax ne jullit ak moromu jullitam dañ naan al mumini lil muminina kal bunyaani yashuddu ba'dahu ba'dan jullit ak mbokkum jullitam dañuy mel ne ay birig yashuddu mooy dëgëral ba'dahu yenn ya ba'dan ya ca des maanaam lu ko sut lu ci moom boo ñëwee këram di nga añ di nga reer di nga ndékki mu dalal la coono boo mënti am soxla boo mënti am soo ñëwee toog noo non seulement dina la dalal mais dina la dalal ba nga xamee ne soo demee boo tëddee dinga nelaw kooku kenn mënu ko fay dañu ne dañu ne nit ku baax dañ ne jiw bi saxu bi nit nit rek la mën a doon mais moom lépp loo ko waxal rek am nga loo bàyyi dañ koy ñaanal kañ yan na ko yàlla lafal ke daxal ko seytaane may ko mu yeggali ndawam sut bàyyam fante de sa barke ba te li muy dëmbal te di ko dimbal yan na ko ko yàlla jàppale dooleel ko kàttanal ko ak mën-mënam mais li ñu mën a wax yëpp barewul li ñu koy ñaanal kañ may gudd fan gu ànd ak wér ping te dafa jaboote ñëpp jur ñëpp boole ñëpp ñëpp moom la ñu boole ñu nekk benn Mara dafa boole ñoo xam ne xam nit ñi ñu gisee ci Adama ak Awa mu ñëw boole leen tay ñu melni comme ñoo bokk ndey ak bàyyi gënu ko bajjanam bi tok tamit gërem nañ ko sant nañ ko ndax dégg nañu kàddoom dañu ne bajjan su waaxoo jóge fu mu jóge na mu soree ñew ba fi amna na lu tax doom ju baax bu loxom sété day mëna and ak ñepp donc yalla nako yalla ciatal yalla may ko gudd fa ak wër barkel ko barkel ni ñepp yow tamit yalla la yalla bi saxal gi sa place yalla guddal sa fan yagal sa tagawaay nga yegali sa ndaw ku yaru ku baax nga yow tamit dëdë jërëjëf nga maa ngi gër waa émission Wadduha yi. jàmm ak salaam musiba mii wër yàlla nañu tegg te génn senegal gépp te kenn bañ koy amin ya rabbal alamin ci barke rasulillah ci barke yi kilifa gi ñu fi fekk. ndax kilifa yàllaa koy def du maay doomu diw rek moo tax nga nekk kilifa sama borom ay tànn kilifa si màggam ak mbaaxam tey tànnal nañu kii yal na nekk suñu wërsëg yal na gudd fan. te ànd ak barke te yàlla sunu borom bi tabaraka wa taala barkeel xam-xamam ndax nii muy jëriñe jaam yi nii la ko sunu borom bëggee ci borom xam-xam waaw borom xam-xam day am yërmande tey dimbali ñi nga xam ne ñoo ko gën a soxla te moom loolu mooy liggéeyam yal na yàlla barke léppam ci barke rasulillah yal na yàlla taxawu léppam ci barke rasulillah ci barke Cheikh na Tijaani jërëjëf soxna si jërëjëf yow itam yal na nga fekke lépp tur bi naka la soxna si. man soxna maam jaara Mbodj laa tudd. Mhm. maa ngi bàyyee ko maa ngi dëkkee Kër Massar. Mhm. Mara daaw laa xamanteeg moom ci mois de mars bi damaa tëdd guddi boobu damaa tawat man sama borom kër yàlla na ko yàlla yërëm sa jiitu na moom novembre bi passé ma dégg muy wax. te li muy wax yëpp njëriñ la te waxul ni damay faj waxul lii waxul laa di joxe ay ñaan rek am soxna su wootee ne ko képp ku xamul sax képp kuy ne sax xam-xam yow maaraase daf laa ca laa fa jógee jël numéro jokkoog moom ma ñëw ci màkkaan mi mu di ma mu di ma ñaanal ma ñëw mu di ma ñaanal ma gis ci njëriñ mu nekk ku baax ku yiw macha allah dañ koy ñaanal yàlla guddal fanam yàggal taxawaay bi yokk xam-xam bi darajee Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallama maaraase sa nekk ku baax macha te tam ku yàlla may la ku yàlla baax ndax man damaa jot a jaar fu baree baree bari waaw waaye li ma gis fii fii rek laa ko fekk man nag man personnellement man maa ngi koy ñaanal man soxna maam Diarra Mbodj yàlla yàggal taxawaayam guddal fanam yokk xam-xam bi te képp kuy ñëw fii si Mara Cissé maa ngi koy ñaan yal na la fi yàlla jiitu dara darajee Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam amul amul dara lu ma ciy rëccu daal moom ba ma xamanteeg moom ba tey amul lan lenn lenn lu ma ciy rëccu wallahi lazim maa ngi ni ak sama kurus rëccuwuma ci dara si loolu rek laa ci doon barkeeloo maman tur bi naka la. maman Ami Guèye laat man moom maa ngi jóge fële buun man moom maa ngi fi doog ñëw wax dëgg yàlla dama dégg rek muy wax émission yi neex ci rajo bi wax dëgg yàlla moo ma fi indi maa ngi fi doog a ñëw waaye wax dëgg yàlla xam naa ne moom nit ku yàlla baaxal la ndax bi ñu fi ñëwee daal ni mu ñu accueillir moom xam naa ne ku baax rek moo koy def waaw ñoo ngi ñaan yàlla nag yàlla guddal fanam ba ñëwaat di ko fekk ay yoon yu baree bare moom lañu koy ñaanal yàlla man Daado Bey laa tudd wakaam laa jógee ko waaw Mara dama déglu si rajo bi léegi rajo Siwal FM sama mag léegi ma ñëw ma wax ko ma ne ko man kii laa bëgg a seeti Mara Cissé mu ne ma ah mu ne ah mu ne ma nag da ngay góorgóorlu parce que man sama rab bi heure bu ma waree seeti nit yàlla rek dafa may feebarloo. léegi nag jour boobu ma ñëw ma ne ko man dimanche bii laa war a dem mu ne ma du tey nga waxoon ngay dem ma ne ko waa mu ne ma léegi lu la teree dem ma ne ko man dama tayal mu ne ma góorgóorlu rek nga dem léegi ma def la kii du ma recevoir parce que nit yàlla yi mu ne ah lu ñu soxla genre nit yi daal mais bi ma ñëwee vraiment man daal ni ma accueillir dama ko xooree dama jooy dama jooy ikket laa la wax dëgg yàlla ma kontaan si moom ba bëgg dee ma koy ñaanal rek yal na yàlla guddal fanam yàlla bàyyi ko fi rek si suñu kanam kontaan naa si moom. tur bi naka la soxna si. man Fatou Ndoye. Mhm. soxna si foo bàyyi ko Ngor. looy wax ci bés bi soxna si bésu sëñ Maha Cissé. kontaan si lool andi fi sama ñaari mag déedéet kii fii la ma fekka dama tiit sax la baax rek liñ naan montar ya baax yëpp ko bokk heure man bi ma fi doon ñëw ay beekee la ma yor te jëflanteegu ma moom dara waaye gis bi rek tax na yàlla am la mu def suma yaram. kontaan ci moom yàlla na yàlla yokk fanam yàlla lafal ko cat képp ko fi ñëw li nga fee wut yal na la ko yàlla saa borom ba defaral ci barke bi ba tedd bi waxal ni siwal FM de kontan nañ ci ñom torop. Euh, soxna si tur bi naka la mama. Mari Samba ma ngi bayiko ko ba Ngor di deglu waxam dimanche ba jot dama kay deglu bu yalla dogale ma andax sama dom bi woor bi ñew fi bo ba legi mu ñew ma yiwam ah dinam al Islam, ma diko deglu déglu ñaan yi muy joxe lepp ma di ci xewalu ma dégg annonce bi nak ma dal di ñew mooy ñëwee fii fekk fi kii tamit li mu wax ne moom montar yu bàyyi ñoo bokk heure dama tiis sax waaw moo ñëw bàyyi ko di ko ñaanal yàlla moo xam li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. maman tur bi naka la foo bàyyi ko. maa ngi bàyyi ko Ngor maa ngi tudd ko sàmm ah maa assisté nag li ñu boole mooy damay déglu émission am sa rajo bi rajo bi guddi Siwal FM. sama rakk ji tamit toujours mu ñëw di ma wax ay waxam ne ma nañ dem sama doom dafa feebar maama nañ dem nga yóbbu ko si maasise waaye yàlla dogal na giseeguñu tey laa fi soo a ñëw. ma dégg nag kii bi muy def tey ma bàyyi lépp lu ma doon def ñëw ñëw fi pour gisee moom di sàkku ñaan di ko ñaanal yàlla moom tamit xam-xamam bi yàlla na yokk yàlla yàlla yokk leeram. yàlla defal ko jàmm defal ko moo mboolem jël si barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallaahi doon beneen yoon. soxna si tur bi naka la foo bàyyi ko. man soxna Awa Thiam laa tudd dëkk Pikine euh, Mara Cissé nag li ñu boole mooy bokk dëkk baayam di sama kóllëre nijaay waaye depuis ma ñëw fii sœur la ma jàppe su ma gisul sax damay woo téléphone te ba ma ñëwee fii ba léegi rëccuwuma lu ma ko doon xamee ndax lépp lu war ci nit rekk mi ngi koy def ci man di ko def ci sama njaboot dama koy ñaanal comme ni ma ko ko waxee sànq rek gudd fan ak wér gu yàlla yokk xam-xamam def ko mag mag mu amu ñam ci barke yonent bi te képp ku yaakaar yàlla yaakaar ko ñëw fii yàlla yàlla faj say aaju faj suñu aaju ñun ñëpp ñu di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan mu sut baayam ba ay fan parce que ku xamul woon baayam moom moom moo lay jaaxal waaye man dama xam papaam muy sama nijaay de àll siise kon xam-xamam bi macha allah daf ko doon mbaax gi daf ko doon kon yal na ko yàlla jàppale jàppale mbooloo mi jullit ci barke yonent bi te yéen dañ leen di ñaanal ci darajey Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam seen rajo bi yàlla na yokk ba yëg ko mu doon ay rajo yi rajo yi rajo dem ba doon télévision ak lépp loolu laa leen di ñaanal man. yéen ñëpp ku ci nekk yàlla na nga yëkkati yokk ba yëg ko darajey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ta ñaan gi nag ñu yàgg di ko teewee fii darajey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax man wax ci Mara daf may yomb trop ndax xamante bi yàggul lool xam nga at rek la un an la mars daal laa ko xam at rek la mais macha allah macha allah man daal dama koy yokk ñaanal man soxna maam jaar buñ maa ngi koy yokk ñaanal wallaahi alazim fu ma toll dama koy ñaanal ndax man li ma indi woon fii maag yàlla rek ñoo ko xam waaw mais nag maa ngi ciy sant bu wér a wér a di ko sant ko sant di ko gërëm darajey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf barka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw tur bi naka la soxna si Aram Ndiaye soxna Aram Ndiaye dëkk Tëngéej soxna si loo mën a sandi si bésu bi nga xam te ne moom mooy bésu sëñ Maha Cissé xanaa dolli di sant yàlla rek di wax auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما di doole sant yàlla rek di julliwaat si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant yàlla mi nga xamante ne moom a boole ak Mara Cissé di Mamadou Cissé bi may xamante moom yàgg na depuis 2008 laa xamante ak moom yàlla boole ñu ba léegi nag te dara waralu ko du dul kóllëre ndax moom dafa am kóllëre te bu xësee xam nit toujours day yokku à chaque fois que mu xam la rek chaque jour que jëfee rek xamel gi day gën a day gën rafet day gën a dëgg mooy kay santa nag di koy gërëm ak bépp mbokkam dale ko si ay ñaari waajuram di leen ñaanal fa ñu nekk tey yàlla na leen gënal fi ñu joge ma Abdou Aziz mu mu yéene waale si bés bi tam ñu koy ñaanal moom it yàlla na suñu borom bu tedd subhaana taala yokk ay leeram di ñaanal sëñ bi nag gudd fan gu ànd ak wér di ko ñaanal wér gu sax dag dag dag ak képp ku ko xam nag ak képp kuy bëggee sëñ Mamadou Cissé rek di bëgg émission bi di di di Wadduha rek ñu ngi lay ñaanal yàlla nga gudd fan. ni mu koy waxee rek ku ma namm la euh, faj sa aajo rek ku sa aajo narul faju rek yàlla boo ma gis waaye damay ñaan yàlla suñu borom bu tedd ba subhaana taala mi nga xamante ne mooy maye wér yàlla na ko yàlla kantanal yàlla na ko yàlla dëgëral ndax ku am kóllëre la koo xamante ne bu jàppee du bàyyi yow di nga toog sax gëj ko woo mais moom da lay woo téléphone. à chaque fois que ma toog gëj a dégganteeg moom rek dina ma woo téléphone ba xam man si lan laa ne di may nemmeeku di nemmeeku sama njaboot gis nga jour bi may ñëw fii bi ma koy woo téléphone wallahi azim dama doon jooy téléphone di jooy xaj mu ne ma noppil boo ki wéree nga ñëw depuis ma xamante moom ba léegi mën na la waatal ne samay rangooñ si la fere si kantanu yàlla ndax xolam xol bi muy bi mu lay ñaanalee rek moo tax yàlla di nangu parce que xolam macha allah te moom lu mu lay defal rek xol la kay defee ak yërmaande du xaalis du lenn nag waaw moom jàppewul nit xaalis jàppewul nit dara moom ni nga ñëwee rek ak sa yar ak sa teggin noonu la lay jàppee man ne naa fii ku fi dugg te àndax yar àndax teggin àndax doylu te wóolu yàlla mi la tax nga boole yàlla nga gisante ak moom wallahi azim boo fi génnee sa aaja dina faju te man dama si am yaqin ne loolu wallahi azim man dal na ma benn bu dul ñaar si moom mii ak képp ku ma ko booleel nag ma koy ñaanal gudd fan bu ànd ak wér di ñaanal ñi mu bokkal ndey ak baay di ñaanal ay tàntam di ñaanal képp kuy waajuram rek képp kuy xaritam rek yàlla na yàlla yokkale ba nga yëg ko barke alxuraan. di ñaanal képp ku ko bëgg nag lii góor gi wax léegi ne ku ko gis yàlla na texe man am naa yàqin si ne moom mii ku jàkkaarloo moom texe parce que moom alxuraan kese la. deful lenn du dul li neex yàlla ak li neex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si lay dox te si lay wax ku deful loolu sax seexulaax yow lenn ma koy ñaanal gudd fan encore une fois di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér di ko ñaanal kantan gu sax dakk dàkk dàkk dàkk ndax service bi muy taxawee si service jaam yi yàlla gis na ka te euh, mission lay dox nag mission bi yàlla na ka yeggale si barke alxuraanu karim mu ngi dimbali jaami yàlla yi boo tawatee ñëw mu dalal la boo amee problème mu dalal la yal yàlla may ko wér kanta nag yàlla bàyyi kax njabootam guddal fanam dëgëral taxawaayam di ñaanal famille am yal na yàlla defal leen jàmm defal ko kullu kuy jullit barke alxuraanu karim allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. tur bi naka la mama. Seydou Fama Aïcha Sall. foo bàyyee ko. saint ci bés bi nga xamante ne moom mooy bésu sëñ Maras. xanaa di ci bëgg rek di sant yàlla xam gi ma xam sëñ Modou. ndax dafa di nekk ku sell. ku ragal yàlla te ragal yàlla rek moo am solo ci nit lu mu mënti am ci àddina di am ragal yàlla amul dara te gis naa ko ci moom loolu moo tax mu fonk yàlla taggewul dara nit lu dul yàlla ak سبحانه وتعالى روان يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا لنين دمان دي ما بند دوم آدم بند نسا بند غور بند ay def leen ay giir ak ay peuple li arafu ngir ñu xamante jullit doomu aadama yëpp dañu war xamante te bu ñu xamantee war dimbalante mu amul jullit amul kuddu dul jullit ñëpp war dimbalante doomu aadama ak morom dañu war dimbalante rawatina na ngay jullit pour dimbale sa morom ci bépp fànn te moom say moodu loolu lay def seetal ku am seetal ku ñàkk ñoom lay dimbale ba pare nag subhanahu wa taala ni inna akramakum inda allah attaqakum loolu mu ci gën am solo nee na ki gën tedd ci yéen daal mooy ki gën ragal yàlla loolu la wax waxal ku am askan bu baax waxal ku am alal dafa ni inna akramakum inda allah attaqaakum ki gën ci yéen daal mooy ki gën ragal yàlla ragal yàlla di lu am solo tàggati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ka wa innaka la ala xuliqin azim am nga mënoon ko takki taggee askan bu baax te moom ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci askan bu rëy la bokk ci arab yi kenn gënu ko ci giiru arab waaye teggewu ko ci loolu mi ngi ko teggee ci jikko teggewu ko ci deret teggewu ko ci alal teggewu ko ci taar jikkoom la ko teggee moo tax nit lu mu mën sàkku rek jikko bu baax la war sàkku war wattu lor moroomu jullitam war wattu fen war wattu jëw loolu muy loolu mooy jikko ju rafet mooy jikko ju baax ñun ci loolu la ñu war sàkku te moom dama ko gis ci moom loolu moo tax tey heure bi fekk ma fi tey la waroon ñibbi sa lii waaye daf ma ko wax rek ma ne lu mu gàtt gàtt dinaa ñëw teewal ko beneen conférence asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuh min asheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim yéen gaa yi sopp Wadduha tey diglu émission bii di Wadduha laay teewlu yéen gaa yi sopp Wadduha tey diglu émission bii di Wadduha laay teewlu dimanche bu jot 22h la koy amal wala def siiwal fa lay amee bàyyi ko xel ma wax la nag ka koy amal moo jara xam nga lu mu wax mu di njariñ yu mat a xam Mawlodi Touba sant waay di Cissé am na ñu naa ko Mara naam Cissé nit ku woyof tey laaye biir ci li mu ku dem fa moom wax ko sa mbir mu jox la mbir. karaafiloog samsul bilaad xamsuuna xaaf sekkare yi màgg na lool ay na ci gaaf. karaafiloog samsul bilaad xamsuuna xaaf sekkare yi màgg na lool ay na ci gaaf. seytaane yeeg jinne yi ak ñiy yàq bul fàttekat cuuraayu duhaa day dàq seytaane yeeg jinne yi ak ñiy yàq pharmacie bii di Wadduha yàlla na taxaw te ku fa dem fekk fa lam bëggoon ci yow daaray Duha moo may bëggal sëñ Moodu yow na taxaw te jëm ca kaw soppe yii ma fi wax des na yeneen yu ci soppe yi ak ku fa moom ngir diine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 nga ay basur atayo marahen ah, fat nga suni tawak karam nga sumbangoy ku jaxle ñu ba gis la yow jaxle ga day ta xawluna suñu du de ma ñaanal waxtu bu jot may jëm ca kaw te bu ma jeel ta xawluna suñu du de ma ñaanal waxtu bu jot may jëm ca kaw te bu ma jeel ma wax la si ko bot duha muy tubba lu am na ma wax la si itu. lu luy njëriñ am na fa wax ma yomb la defar ñetti www teg ca point teg Wadduha point org nee ma say defar ñetti www teg ca point teg Wadduha point org nee ma say saw laa kàddu gi jamono ji koy wax ne moom mooy kii di Serigne Abdoulaye Gueye moom nag yaa ngi danañ di ñu ngi ko def di wax taalif bi ci bindal ay bay bismillah kitaabu waxtuha liggéey ba noppi na gaaw leen wuti téere bi le ndax wér na kitaabu waxtuha liggéey ba noppi na gaaw leen wuti téere bi le ndax wér na téere la bopp lu di njariñ téere la bopp lu di njariñ am na ko loo soxla yow ci wàllu ñaan andi na ko ku bëgg lii di musluwaay baa ubbi ko daa nga bëgg wërsëg wu rëy yow jëndi ko ay ñaan yu rëy ci wàllu cat mi leen lëjël am na ca téere Wadduha yow jëndil ndaw sunu bij ba góor ñëw mu dàq ko na seeti sëñ Moodu Siise te wax ko ko ndaw sunu bij ba góor ñëw mu dàq ko na seeti sëñ Moodu Siise te wax ko ko liggéey bu bon mbaate jibar ndaw su taxaw lum mën a doon ci yi wax ñaana ca gaaw bu bon mbaate jibar ndaw su taxaw lum mën doon ci yi wax ñaana ca kon téere bii li na ci biir bari na lool lii la wax li ma waxul raw na ko yow étudiant bi bëgg ndam sa jàng mi téere ngi nii am ñaan yu baax ci examen yow étudiant bi bëgg ndam sa jàng mi téere ngi nii am ñaan yu baax ci examen kuy wut liggéey mu jafe lool xëy di wër jëndil kitaabu Wadduha sa joona far kuy wut liggéey mu jafe lool xëy di wër jëndil kitaabu Wadduha sa joona far yow soppe bi téere ngi nii bu am njariñ fexeel ba am téere bi le mu lay jariñ xamal ne kat téere ngi nii bu neex a liir ci làkku réew mii di wolof te doon lu leer xamal ne kat téere ngi nii bu neex a liir ci làkku réew mii di wolof te doon lu leer du yàq bët du yàq xel muy jabasiin loo gën a liir di gën a bëgg du waxi ma dal li ñaan sëñ Moodu mii bu may ko wér gi yaram ak famu yaate jox ko kun fayekoon mi man di def baa dimbi ci mépp mbir mu mën doon fil baladi ma daal di ñaan sëñ Moodu mii yaram ak fan wu yaate jox ko kun fayekoon muy man di def baa dindi ci mépp mbir mu mën a doon baladi na yàlla def mu ci saydina muhammadin ak saaba ya ak ahmaduna asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu